moom lañ fi nemmeeku muy police jamono ji foo tourné ci jàmm gën ñi ngi sillonné ngir rek daal di sàmm sécurité mais ci biir jàmm gën aussi da ngay seetlu xale yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk takku nga ba dëgër toog nag di xaar convoi wu Siteu ndax su départ fii fii kër maamam la donc dafay départ fii rek génn jaar ci yeneen euh, yoon yi jël fa ñi nga xam ne ñooy mboolam mi woo leen ñoom ñëpp ñu daal di àndandoo def benn. Euh, convoi bu mag a mag xam ngeen Siteu convoi bi koy topp kenn mënu koo maîtriser làmb nag daf cee am wàll te daf cee mës a am wàll itam tey mu nekk combat royal bu am doole boo xam ne nag moom la fas yéene def foo tourné ci jàmm gën gaa yi ñu ngi teg couronne bi seen bopp yi nee nañu Modou Lo mi ne mooy borom dëkk bi dafa juum loolu mu wax mun ta nekk Siteu mooy borom réew mi tey itam tey dina ko ko wan ndax dina yomb loolu nag la ñuy euh, saytu si ñu xool ci ban état d'esprit la sita di génnee moment bi euh, képp kuy euh, euh, képp kuy nituk làmb rek ak ñi nga xam ne sax nag wax dëgg yàlla ñoom làmb amuñu ci lu dul jékki-jékki rek yem ci xam nañu bis bi yëg nañu ko parce que nag bis bi communication bi dafa jàll ci diggante ñaari mbër yi non seulement mais aussi li nga xam ne mooy làmb li muy indi ci mbooloo xam Siteu ak li ko topp ci mbooloo ñoom ñaar ñu daal di daje histoire doxul woon ba dajale leen parce que dañ doon jàpp ne Siteu mbër la moo xam ne dafa am lu mu séq ak Modou ci wàllu askan mais c'est des professionnels quand yoo xam ne mujj nañu daje ngir rek daal di bëree Modou Lo ne ko ni ma def ak Ama Baldé jox ko sansam ne ko kaay ma teg euh, sama couronne ñu xool ba xam di nga ci mën dara Ama ñëw Modou Lo saax saaxe ko daan ko Boy ñaa ne ko maay jël si revanche bi Modou ne ko ñëwal dinaa ko tegaat te itam doo ko fi mën a jëlee moo Boy Niang itam ñëpp amoon ci yaakaar Modou Lo jaaraat ko fa mu jaaroon Ama balde yëf ya jeex tey ñëpp ne Siteu la ndax Siteu dina réussir li nga xam ne moom mooy l'impossible on verra loolu nag dinañ ko daal di gis ci kanam tuuti lay doon en tout cas lamb ji pay lay nekk maanaam ku bëgg a seetaan da ngay daal di dem jëndi sa ticket dès l'instant su ko defee nga mën ko xool wala sax bokk nga koy dégloo ci yeneen ondes yi nga xam ne peut-être nañ ko fa mën a euh, teewloo donc entre Modou Lo ak Siteu kan moo ci nar a daan moroomam actuellement il fait quatorze heures quarante trois presque quinze heures te Siteu ci ay xibaar ñu ngi ko convoqué ci stade bi dix set heures la war a dugg fi nga xam ne moom moo di ci arène nationale bi. te ko xam Siteu ak combat am wax naa ko léegi dafa yéex Siteu buy génn mbooloo mi koy topp du mën a daw bu baax de jàmm gën ba arène nationale li koy topp ci mbooloo combat am kenn du ko mën a maîtriser tax na foo tourner force de l'ordre yi ñu nga fa ngir balayer li nga xam ne moo di yoon bi bañ rek convoi bi am ay jafe-jafe ak xat-xat donc dans un du tardé Siteu daal di génn wax naa leen ko mën na def une heure de temps voire une et quelque ci yoon bi te diggante bi sorewul de waaye comme li ma leen wax li koy topp ci mbooloo nee naa la xale yi defar nañu moto yi ñii yëpp nañu oto yi ba mu fees dell ñi ko amul dañoo fa yéene dox ñii jël nañu kaar yi booy ñëw fii sax doo am kaar indi nga jëm si jàmm gën ana kaar yi ñu la kaar yi gars jël nañ lépp dèjà ñu ngay envahir stat ba dèjà béy yi ñu ngi koy seddoo dèjà t-shirt yi gisatoo ko fenn dèjà kuréel yi loo ci jaay ñu jënd ko dèjà mbii bi loo ci jaay ñu jënd ko tout ça loo laaj ñu ne Siteu Siteu rek te itam mooy yalmin bi Modou Lo ne ko nee leen ko yaa saxle ak gara yaa saxle ak gara mooy borom dëkk bi ñëw na waaye ndax tey ki nga xam ne moo di Siteu yalmin bi dana ko may loolu on va voir ñu gis làmb ju bari euphorie ñu gis combat bu neex dinañu gis itam xeex dinañu gis ambiance surtout dinañu gis mbooloo mu bari gis ngeen les forces de l'ordre gis ngeen ni ñu takku taxawal jamono ji leen te noonu ngeen leen di gisee noonu lañ nekkee wër fii yëpp rien que pour assurer li nga xam ne moom mooy sécurité bi. rien que pour assurer sécurité bi jaral na leen ko parce que nag bi mel nii da nga ciy jël see disposition ñu bari dañuy wax ne làmb dafa ànd ak violence alors que non làmb àndul ak violence. ya naam naam nag yenn saay am ay am ñoo xam ne foo fekk ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy def ci farata am na ñu fay raas déem mooy ñooñu nga xam ne dañoo mel ni man ñoom seen yoon nekkul ci yëf yi seen yoon nekku ci waaye ruubee leen ciy dugal. loolu nag mooy li waral gars yi ne dañuy jël suñuy dispositif sécuritaire yu mat sëkk ndax nag làmb du ay caaxaan ndax su esport la boo xam ne ku xool rëg-rëg xam ne lamb du ay caaxaan parce que rëg-rëg su mënee dem ba nekk champion du monde àdduna yëpp di ko bàkkoo mu yóbbu turu Sénégal fu kawe loolu je crois que nekkul lu ndaw nekk na loo xam ne honneur la bu ñu téyel tax na nag tey jii ñu war a gën a fonkaat suñu sport national gën a fonkaat làmb ji parce que mu ngi produire ay nit ñoo xam ne ñu ngi gën ci biti di def effort donc voilà ñun comme li ma leen wax yéen a ngi euh, seetaan li nga xam ne moom mooy euh, euh, préparation yi départ bu Siteu fi nga xam ne moom moo di biir jàmm gën fii kër maamam la comme li ma leen wax Siteu lu bare bari buy wax day wax ci maamam donc maam ji ku sori la ci moom muy représenté ci moom tax na ci këram gi lay defee léppam su paree daal di génn open press Siteu ne tey may leen ma rek ma defee ko fi nga xam ne moom moo di John Waar foofee lay dem ànd ak samay mbokk ñu ngemb ma ànd ak samay mbokk daal di bàkku ànd ak samay mbokk daal di def li nga xam ne moom mooy sama cosaan ànd ak samay mbokk wax ak taskatu xibaar yi ne nag nii laa fa yéene jëflanteeg Modou Lo ku xool combat bi da ngay jàpp ne sax Siteu est-ce que du am kersa siggi xool Modou Lo wala Modou siggi xool si Siteu ndax dafa am lu dox seen diggante waaye loolu amul lii moo lay wan ni gars yi ay vrai professionnel lañu lii moo lay wan ni itam ñu fonk bés lañu lii moo lay wan ni xam kon xaa lañu lii moo lay wan ni itam li ñu nekk gëm nañu ne ndam rek lañ ci war a mën a am parce que nag xeex la bu ñuy xeex te tamit nag seen liggéey la te ñoom ñoo ko war a sàmm tax na fu ñu toll ñu ngi véhiculer message buy tax seen làmb gën a mën a jar gën a mën a dem nit ñi di ci gën a bàyyi xel voilà la jour ji voilà benn ambiance bu uuf bu ngeen di seen jamono ji fii ma toog maa ngi seen de à droite de en haut ba ci en bas foo tourné ci kër yi ñëpp ngi taxaw ci seeni i terrasse di taxaw ci seen i balcon ñoo di def fee ambiance bu doy waar ngir lan waajal Siteu mu génn dans un instant à l'autre bu verrez que ni Siteu génn na bu génnee di nga gis mbooloo mi ko topp bu génnee itam di nga gis ne doomu jàmm gën bi représentant bu mag bi ambassadeur bu mag bi daal dinay génn Siteu borom baat bu kawe bi soo ko déggee mooy lu mu wax am na ñu bare bari ñu koy mën a dégg ku gis Siteu bu jàmm gën amee inondation mu génn sol ay dàllam dugg ci biir ndox mi xuus gis ñi ci am jafe-jafe mu daal di woote wàllu yëkkati dooleem def ci kooku mooy Siteu dafa jege waa jàmm gën dafa jege ñi nga xam ne ñoo di population moo tax saa bu wootee rek gars yi dañ koy wuyu saa bu waxee ñëpp daal di koy déglu voilà un jeune pétri de talent voilà un jeune boo xam ne dafay gàddu message bu am solo bu muy teg ci nopp ay ndawam yi ko topp te mooy gëm leen seen bopp liggéey leen gëm leen seen bopp ngeen bennoo fexe leen ba bu leen jël violence di ko daal di persévérer ci seen biir bu leen ko prôné parce que violence amul njariñ loolu mooy ay waxam saa su ne li mu bëgg rek mooy képp ku koy topp nga daal di yeewu képp ku koy topp itam nga nekk nit koo xam ne da ngay civilisé d'autant plus que lu bare bari dañ koy bàkke làmb di ko bàkke jàmm gën di ko bàkke yeneen gox yeeg goxaat yi naan foofu ñu fa dëkk dañoo indice alors que non non non et non gis nañ fi ñoo xam ne c'est des gens civilisés gis nañ fi ñoo xam ne c'est des gens très corrects yi nga xam ne dañoo taxaw juste pour ànd ak seen mbër lu mu laaj ñu def ko lu mu bëgg ñu taxawu ko ca di ko galvaniser di ko yokk fit ak jom lii mooy ab jàmbaar buy dem ca xare ay mbokkam génn géwél ya génn ñi ko jege génn dëkkandoo ya génn ne ko nag yaay jàmbaar yaay fàkk tëdd yaay mbër yow rek la ñu àndal yow rek itam lañu bëgg boo demee nga féexal suñuy xol yow rek lañu bëgg soo demee nga indil ñu suñu ndam li moo tax ki nga xam ne moom moo di Siteu bu génnee fii ànd ak gis mbooloo mii topp ci ginnaawam mu xam ne ah am naa sas bu rëy waa jàmm gën ñu ngi xaar mu indi leen kuron bi su génnee ba gis xale yi nu ñuy takkee couronne yi ci seen bopp yi su génnee ba gis xale yi ni ñuy dawee ci naj bu tàng bi ñii solu ñu dàll ñii sol nañu dàll ñii amuñu sax paas bu ñu duggee biir stade waaye danañ ko topp danañu daw topp ci otom bi danañu daw toftalu ci ginnaawam di ko yuuxoo di ko xamal ni ko dafa mel ni si tàngi waaj a génn dafa mel ni yàlla bin bi génn na oh, yàlla min ba génn na yàlla génn na si bi génn na doomu jàmm gën génn na dëkk baa ngi yëngu oh lamb lamb boo lamb moo rafet xoolal xale xool leen kontaan nañu nañu déglu ambiance nañu jël ambiance nañu jël ambiance. Siteu Vivier la. si. booy yi nee nañu Siteu la. booy nee nañu Siteu la. nee nañu Siteu la. li ma jaaxal tey gars yi vert blanc la ñu jël. tey gars yi vert jël tegtal lam lu mu doon. en tout cas couleur bu vert mu ngi bëgg a sixiñ ci làmb ji. kuy ñëw indi vert. Eumeu Sène ak vert ba. terewul ñu daan ko. Modou Lo indi vert daan. waa lu nekk ci verte bi wax leen ma lu ci ne yéen ñi ko xam wax leen ma lu ci ne à travers Dakar Actu seen teranga wax leen ma lu nekk ci verte bi laay leela laa léegi si te génn léegi yàlla min bi génn doomu jàmm gën génn gaa ñi bëggee yëngal ba mu neex ñu dem stade kan mooy daan waa jàmm gën neenuñ si te moo ko mën moo ko ëpp doole moo ko dàq bëre moo ko ëpp mystique moo ko gën a pare gars yi ne leen Modou Lo ngeen di bëreel mag la ak gone waaye gone gi mooy lu ne moo tax ngaa ko beleen ne ko xam si të xam ne mbër kaamil la te du mbërantaan am fit bi na ci gaynde waaye caay caayug melentaan éé kookoy si të kooku mooy si ñi ko xeeboon ci làmb yëpp da leen a jàpp daan wax na dëgg wax na dëgg jamono jëmuy ñëw naan bekaay jël ma jël ma en direct père bekaay indi kaamin bi naan gars yi dañoo jàpp ni damay tux damay naan naan ko man duma ma tux du ma naan Cheikh Sidi Sidi Mbacke alxuraan laa yaakaar kooku rek laa gëm man yooyu yëpp du ma ci nekk kooku mooy Siteu jamono jooju yàgg na per bekaay ba mu koy interroger muy génn di wax booba kenn foogul woon lii waaye gisoon nañu lii itam ga waajaa ngay wis xorom waaja yoon na saako xorom mu ngay wis waajaa ngay wis xorom est que xam ngeen xorom loo ci loo loo ko dugal lu ne loola daa ci gis barke bul wis policier yi nag seen yoon nekku ci bu leen wis xorom moytul wis suñu suñu force de l'ordre yi bu leen wis xorom waaw waaw waaw ñoom bu leen wis xorom nag seen yoon nekku ci waaw bu leen wis xorom bàyyi leen fañ taxaw bu leen wis mbay booy wis wisal suuf si xorom la wis ndax xorom la ca nekk bari na Siteu dugg na ci oto ba Siteu dugg na ci oto ba barrière ya daj nañ ko force de l'ordre yi ña ngay taxaw jël nañu seeni i livre pour disperser mbooloo mi waaw waaw ndax Siteu am fu mu jaar ndànk gis nga. c'est ça la police ndànk c'est ça la police on ne violente pas notre population c'est ça la police on est fiers de vous nos forces de l'ordre jël leen ambulance bi waaw yaa ngay way Siteu la Modou Lo tay nga dee kee mënatul téye boppam Ousmane jëlal ndaw see mënatul téye boppam ma ngay jooy ñu ngi koy nax yaram daw na ndeysaan fi nekk nii fi nekk nii dootuñu mën a téye seen bopp ndax mag la ci Siteu ndax mbokk la ci Siteu ndax jegeñaale la ci Siteu ma ngay jooy ña ngi koy defal xol bi attanatul lii oh c'est émouvant Oh, yaayu si tàng ne taxaw yaayu si tàng ne la taxaw sol lu vert moom itam kaalaw meer baa ngoog meer baa ngoog gàddu kurusam mu ngi nii gàddu kurusam borom yére yu vert yi nee nañ mooy yaay yaayu si tàng noonu usmaan sol lu vert te kurusam fii ci Sen Teranga ak Dakar ak fi ngeen koy amee yaayu si tàng nii taxaw ngem na doomam galvide na doomam ñaanal na doomam jàjj na doomam fas yéene ko tertu nag ne ko génnal dem génnal dem bu dee sama ñaan rek amal xel mu dal dee sama ñaan amal xel mu dal di nga indi ndam yaayu si tàngi noonu ay waaye lamb lamba neex gis nañu kenn ci jigéenam yi jooy ba soo ndax attanatul lii waaye gis nga yaaja ma nga dëgër taxaw di xaar doomam génn lan la war a def lan la bëgg a def lan la bëgg a def lan la ba yaayam bëgg a def loolu la ñuy xool ak yéen en tout cas daal dinañ koy balayal yoon bi police taxaw na le police taxaw na fa fas yéene koo gunge gis nga gars yi gis nga feneen fa ñu nga yëngal moto yi ñu ngay klaxonné fii ñu nga yuuxoo fii vuvuzela yi di mbiib vuvuzela yi di mbiib doon yi ci bopp yi drapeau yi ci loxo yi brassard yi ci tikku jara yi gars yi ànd ak ci tër naan ko yewa yewa loolu mooy làmb yaayu si tàng taxaw ba mu ngi taxaw di xaar ba tey mu ngi taxaw di xaar doomam génn waxoon naa leen dans un instant à l'autre si te génn ndax dañ koo convoqué 17 heures balaa 17 heures war na dugg ci làmb ja bàkku def ay débat débam waxtu bi jot mu sëgg bëreeg Modou kan mooy daan xaw ma ko xawma ko kenn du ma dugal kan mooy daan xaw ma ko waa jàmm bu ñu sañoon si taay daan waa parcelle itam ña nga ña nga ca woon suba seen naa leen ñuy gas rek ñoom ña doon gas seen i di gas ndax dañ caa ne rek xaw ma sama waa jàmm gën it nañu ay glace yu bari tuur nañu bari mu noonu yëf waa ji waa ji saako xorom xëpp na ko fi waa ji saako xorom xëpp na ko fi si te war a jaar laa ilaha illallah waa ji saako xorom bu ne bu ne muut bu wow koŋ la sotti saako xorom bu wow koŋ nag laa leen wax amul dara lu ci des moom la sotti moo tax ñu toog di xaar si tàngay génn mbooloo maa ngay ñëw saa lii la tuddee làmb si tàngay ñëw gis naa ku yore ab garab ca kaw oto ba garab gi lu mu doon reenu caxat lam baransub caxat la wala ngeer lam ngi gis la bu ci mën a doon yor na ab ab car su ngan ndax dañ koy dóor ci yoon ba muy jaar ci buntu stade ba ndax dañ koy bàcc bàccal fa muy jëm ndax dafay tojtal ndax ndax ndax en tout cas bu dee bu dee carug nga gis la wala lu ci mën a doon mu ngi noonu ñu raadu ci oto ba ngeen di seen oto yaa ngay ñëw oto yaa nga raam oto yaa nga raam di génn ña ngay raam di génn ña ngay raam di génn ña ngay raam di génn oto yaa nga raam di génn oto bee ngeen di seen 4-4 Ford bee ngeen di seen mu kawe lool ca kaw foofu la Siteu ne bu leen ko war feneen foofu la ne Siteu nga ci biir 4 ba yaay jaa nga ne taxaw ba tey ay ca ay ca ña ngay xëpp ndox ña ngay yuuxoo ña ngay xëpp ndox ñii di yuuxoo yaay jafa mu taxaw ma nga taxaw rek ay waay yaay yaay sonn na yaay fa mu taxaw ma nga taxaw ma ngay xool mbooloo mi gis sa doom di dem mbooloo mu toll nii accompagner ko nga ne waaw lii lan la oh yaay sonn yàlla yàlla fay suñu yaay ñoom lu xew dañuy sonn oto yaa ngoog newoon naa la am na waaju yor aw car lii ngi gis laam déem laam lu mu doon eh, eh, làmb ak gàllaaj làmb gàllaaj oto ba dañ koo sanga sanga sanga sang ba mu weex <laughs> oto bi sax dañ koo sang ba mu weex waaw waaju lum sol nii kankurang la wala lan la kii kan la yow moytu naaj bi kii la moytu naaj bi mbay yéegal ci oto bi yéegal ci oto bi moytu naaj bi xoolal xoolal gaa oto ba oto bi moytul coincé gaa yi yow itam oto chauffeur chauffeur chauffeur li ngay dawal moytul moytul gaa yaa ci kaw oto ba yére seeni barance lii la waal lii lan la ay waay dana leen tànc ay waay moytu leen moytu leen barakel te dem mu ngoog mu ngoog mu ngoog bul laal vitesse bul bi ndànk rek ñu génn bul dóor teet teet teet lii doon wax Siteu pour mu dem c'est tout un problème xoolal ab tubaab nga ca tubaab nga ca combat ba combat wu Siteu oto gàllaaj laa ilaha illallah waaw waaw waaw waaw xale yaa ngay yuuxu Siteu ngoog di dem mbër maa ngay dem jàmbaat jaa ngay xare ji ana Siteu wëral leen na ko wëral leen na ko wëral leen na ko xoolal yaaja xoolal yaaja Ousmane toppal yaaja Ousmane toppal yaayu Siteu wala dem na dem na dama jàppoon ni day day dajeeg Siteu waaw waaw. nee nañ ko Modou Lo tey ñu rey la wuyu la waa jàmm gën. mu ngi noonu mu ngi noonu Siteu ngi noonu di dem waa jàmm gën a ngi noonu di dem ca làmb ja la ñu jëm waa jàmm gën ña noonu di dem ànd ak seen mbër ma di dem kan la fekk ji yéen waa mooy kan Modou xarañ loo gën a patt taw jëf ci suuf laa ilaha illallah mbër mi gën a xarañ xoolal bii xeetu mbooloo xoolal nii lañ koy toppee nag nee naa lañ koy toppee ba biir stade allahu akbar nii lañ koy toppee ba biir stade ci te li tax convoi am day teel a génn ndax bu teel te génn mbay du mu yomb ci moom gis ngeen mbooloo gis ngeen li ko nar a topp li ko nar a topp li ko nar topp waa kii kañ lay àgg kii kañ lay àgg xoolal ñu ngay xëpp ndox ñu ngay ndox ñii lañ koy topp moom ba biir stade koy jàpp ak moom ñun nag li ñuy def mooy mbokk yi doon seetaan seen teranga la télé de l'hospitalité depuis ce matin ñu toppal leen convoi bu Siteu li ñuy def mooy jox leen dig daje ci kanam tuuti ñu gën a wéyal ak yéen ci job bi gën a wéel ak yéen ci convoi bi gis ngeen loolu ci xeetu mbooloo te lii ngeen gis nii nag ab bu su ndaw la de nee naa leen bu génnee fii la koy xaar ci bitee gën a rëy moo tax xale bu am mbooloo la xale bu am ginnaaw la xale ba xale la boo xam ne làmb daf koo jox gëdd te itam musu koo caaxaane kooku mooy Siteu ndax mën na wax le futur roi des arènes yàlla rek a xam ndax mën naa daan Modou Lo lu mën a nekk la waaye yàllaa xam li ci des nag yàllaa ko moom ñoom def nañu liñ war a def ñaan nañu saraxe nañu tuur nañu xëpp nañu def nañu lépp gunge nañ ko tàdd nañ koy galvaniser yaay ja génn ñaanal ko ànd ak moom ne ko demal sama doom soo demee indil ñu ndam jàmm gën gépp a ngi nii sa ginnaaw xoolal léegi nag ñi mënut dem stade dañuy dem toog seen kër yi xaar pay view daal koy mën a seetaan dégg si te daan na ñu yuuxu bu ñu yuuxoowee ñun waa seen teraanga ñu del si waat daan leen jëlal ambiance fii ci jàmm gën c'est Siteu lii mooy li nga xam ne mooy suñu liggéey ak yéen seen teraanga TV la télé de l'hospitalité saa bu dara xewee ñu daat leen koy toppal léegi léegi ñu joxaat leen dig daje ci li nga xam ne moom mooy convoi wu Siteu bàyyi leen ba ca stade ba topp leen itam convoi wu Modou Lo ñu toppal leen ko ba ci stade seen teraanga TV la télé de l'hospitalité Ousmane